maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ki nga xam ne moo def sabab bi mooy ministre Aly Ngouille Ndiaye mu ngi tine maa ngi sant ñu mu àndal yëpp ñu mel ne ñoom maître Ka ñoom Sidé ñoom ñëpp ki nga xam ne ñoom ay yarasoo député yi nekk fi yëpp ñi nga xam ne dañu taxaw jàpp ci liggéey bi taxaw xam ne suñu liggéey nuñ lañ doon tax ñu woote réunion bi mooy nañu sant suñu président Macky Sall président dafa am lu mu def nuñ tam am lu ñu def kon kenn ku ne côté bu mu faree def na li mu mën président dafa laaj bëgg dem premier tour nu ñu éleveurs yëpp nekk benn baax mën a jàpp ci mën kii il mu dem il ko que jàpp mu dem pour mu dem premier tour bu yàlla dogal mu am ci ndam moo mu dem premier tour bu mu demee premier tour suñu éléments yu ci jàppoon moo taxaw ci liggéeyam mu sant kon nag ñun tam ñu toog ñu kalaat nañ ko sant sant ñi nga xam ne si jàppoon yëpp parce que di suuf ñu seen su dara am rek dafa am lu ko waral lu ci mag dem premier tour nit ci moo ko def dañ ko woteel mhm. suñu wote woon lu am loolu ñu ko woteel ñu ko wote dañu leen leen merci ñu sant leen sant président république ñu ñaan ko mandat bu mu jël yàlla na nekk mandat bu rafet na loolu nekk mandat bi nga xam ne day jig Sénégal yëpp yàlla na am njëriñ ci réew mi comme moo amee njëriñ bari yoon moo ëpp ko sax parce que président dafa am lu mu def soo gisee mu am lu mu am moo ko liggéey nit ki dese mu am cinquante huit virgule nangam mosu fi am kon moo ko liggéeyal boppam ñun tam ne ñu gis loolu def ko loolu liggéey ne ko jàppale ko mu am deuxième mandat mun a jëli réew mi mun a dimbale réew lii moo li la gis moo tax ñu jàpp ci nit su fekkee gis nga lu mu def dafa baax xam nga lii day jëriñ Sénégal kon nuñ war nañ jàpp ñu Sénégalais lañ ti surtout côté bu ñu fare côté sàmm bi Wat Sam buy dafa def jéego bu mag ndox bu ripaas bi lépp li nga xam foo doon dem 5 kilomètres 4 kilomètres da nga sanax naan wala wanaan kon loolu war nañ su amee deuxième man dañ jàpp dañ ko war a sant moom ndax sant nañ moom mun kam nañ ko sant nañ ndax sàmmkat yi am na leneen lu nga xam ne ñu ngi koy def ay dem jëmale ko ci nguur Macky Sall ci 5 ans yi surtout. même démb jox nañ ay doléance parce que loo gis rek. lu mhm. nekk lu nekk du tey moom def na sax. waaye nu mu def dañu bëgg ñu dolli ci biir forage yi am na yi nga xam ne ay sites yi nga bëgg nañu am ay forage soo am nañ sites ne am na yenn si càcc biir suñu commune fu ñu wax daara ndaara boppam site boobu dafa kaw mooy na yeneen sites ne yu mel noonu dañu amul ndox loolu la ñu bëggoon président renforcer yi dimbale ci ndox bi mu yokku li xam ne mooy programme bi passe bi mu dimbale ñu wàññeeku li nga xam ne soo amee quatre mille francs wala trois mille cinq cent fekk daa am sa saako nga dem jox sa nag loolu ndimbal la ba tey parce que defoon na ko mun na ko defaat surtout du ñu ne moom lu mu defoon daal rafet na dañ bëgg naa mu yokkat ñu moo suñu programme loolu lañ ko sant leen ñaanal ka yàlla may te liggéey bu mu sumb ak mandat bu mu jëlaat nekk mandat bu rafet nekk mandat bu jàmm kenn mu si boppam. Mhm. Euh, waa Prodac aussi mu ngi mel na ñëw nañ si ndaje bi euh, noo gisee loolu. non rafet na man man dem ko rafetlu rek. parce que fekkee ñëw lii moo sa liggéey nga dégg liggéey bi yëngu ci biir fi nga nga bokk ci da nga war a ñëw teew wax soxla parce que bu ma doon ñëpp dañu kontaan mais nekk dañu bëgg liggéey ak moom ñëw indi liggéey liggéey ak moom kontaan parce que moom lu mu lu mu affaire bi passe lu mu wax affaire commerce bi passe wala affaire éleveur yooyu loolu la ñëw moo tax ko ñu woote moom mun nañ a ba jaay ni saaku cinq mille francs dinañ jàpp ba mu taxaw ñun suñu bopp dinañ jàpp côté bu bu fu ñu wootee wala lu mu liggéey wala fu mu jënd indi mu ngi jaay dana gi jënd mhm. parce que moo moo ñu wan loolu